gan gi monsieur le ministre Amadou Tidiane euh, Wane euh, nekkoon itam ambassadeur wu Sénégal ca bitim réew ñu ngi lay nuyu monsieur le ministre di la ziare am mbégte lool ànd ak yow euh, ci matinal bi tey. Ah, jërëjëf maa ngi leen di gërëm di leen sant ci dalal ngeen ma mhm. ngir waxtaanee li xew ci réew mi tey muy troisième vague coronavirus mbas mi ñu koy dund boobaak léegi muy bëgg yàgg yow fii réew mi toll ak mbas mi ban jàngat nga ci def. Ah, waaw jërëjëf jàngat bi ma ci. Euh, njëkk am moo di euh, feebar boo xam ni bi muy ñëw yëguñu ko ba mu ñëwee ba léegi ñu ngi bëreeg moom te bés bu jot ñu ne ñu doomu jàngoro gi dafa soppeeku indi na yeneen feem war nañu def taxaw seetlu ndax dañuy continuer di ànd ak moom di bërëmu wala dañuy taxaw seet yan pexe ak yan jumtuwaay la réew mi yëpp war a tëral ñu bokk ànd ñu ñëpp bokk benn yéene taxawu suñu askan taxaw suñu réew li tax ma wax loolu moo di war nañoo dugal ci xel nit ñi ne jàngoro bi ñëwul pour dem suba wala gannaaw suba. gan gi ñu béegul. Euh, gan gi daal ci ni ma ko gisee ñi dafa mel ni sax dafay gën a sanc gën di gën a toog di gën a yaatal toogaayam ndax gis na ni ñun defaruñu sunu taxawaay su suñu jógoon ni ñu war a jóge euh, du ñàkk su demee ba ci kanam mu ne ah fii kat muus du fi naa ne ñee xaaral ma jóge fii dem feneen. kon riposte bi autorité yi indi jàpp nga ne doyul wala xëy na baaxul. li ma jàpp moo di autorité yi naam ñu ngi jéem a def lu ñu mën wante ndax tegu nañ ci yoon wi ñu war a tegu. bokk na ci yoon yi nga xam ni yaakaar naa ne war nañ tegu moo di wax nit ñi d'abord dëgg dëgg dëgg dëgg jàngoro bi mën na fee yàgg lool ndax loo xamagul kañ la fiy jóge war nga ko waajal ci li ñuy wax long terme maanaam war nga waajal sa bopp kuy dem ci tukki boo xam ni xamuloo kañ ngay ñibbisi war nga ko waajal yóbbu euh, euh, yóbbal yóbbal boo xam ni mën na yàgg lool hmm. bokk na ci yóbbal yi ñu xelal nit ñi ne du rek gouvernement moo ko war a euh, taxawee opposition itam taxawaayam warul doon su gouvernement defee nga ne baax nam baaxul gouvernement itam taxawul do euh, taxawaayam warul doon ñun kat def nañu lii am nañu ndam ci lii am bàkku jaru ko fi ndax nit ñaa ngi dee bés bu nekk feebar baa ngi law te lu dafay mel ni nga dem géej rek loo ci sotti du doy ndax fekk nga géej fees ba pare mm-hmm. yaakaar naa ne war nañu utiliser njumtuwaay yi nga xam ni ressources humaines yi nekk ci dëkk bi yëpp pour man jële ko bàjjenu gox yi daayira yi euh, ASC yi jàkk yi jumaa yi église yi ñëpp a war a taxaw ci sensibilisation bi sensibilisation mooy ñu xam ne feebar bi ñëwul pour jël jullit wala catholique wala euh, euh, PDS wala APR wala PIT feebar bi xamul parti xamul diine xamul waasu xamul xeet. pourtant foofa itam kilifa yi dañuy wax ne communiqué nañ bu baax sensibilisé nañ waaye sénégalais yi ñëw dëgër bopp euh, loola yow loo cay indi ni tontu. waaw ci man xam nga nit moom mën nga ko jiiñ dëgër bopp fekk ni nga wax ak moom peut-être moo duggul ci boppam rek hmm. kenn dëgërul bopp ci kanam dee ñëpp ragal fi nekk nii ñëpp tiit amul kenn amul benn sénégalais bu xelam dal ci ne su jógee dem xëy liggéey du dajeeg doomu jàngoro bi kenn nit ñi dem toll nañ ci ba nga xam ni soo nekkee sa kër sax su ne sa nit ne salaamaaleykum maaleykum salaam su fi rës ngay naan kii est-ce que. maa indaalewul euh, dara. waaw du fi du du indaale <laughs> dara wala indiwu ko. am na suñ demee ba tollu foofu nga xam ni kenn dematul ngénte dëj sax kenn dematul. wala soo ñëwee da ngay ne ci caf dem sa yoon. Euh, amu amu amul benn ndaje boo boo xam ne bi léegi ñun ñi miinoon di daje di tàppanteeg di saafonte mhm. suñ demee ba loolu yëpp kenn ñemeetu ko def mais war nañu xool ndax nii la ñu bëgg continuer dund mhm. bay laa yow mi din parce que virus bi na neewu la ne deux mille vingt laa fi jóge wala deux mille vingt et un wala deux mille vingt trois waxu la ko de mhm. moom daal mu ngi fi te weer bu nekk mu soppeeku indi beneen feem ah loolu comme xamuñu kañ lay dem nañu seet naka la ñuy taxawaay mais taxawaay boo xam ni ñun ñëpp ay bokk ànd bokk benn yéene parce que fii ngay xamee ne nit ñi tey garabam fii nga koy xame dëgg dëgg dëgg dëgg ne nit ñi tey garabam su su dalee kenn kenn kooku mun na wàll fukk mhm. fukk yooyu mun nañu wàll euh, téeméer muy dem di dem di dem ba dëkk bi yëpp euh, jaxasoo soo demee sëg ya ñuy suul fan yi moom saa yoo fa demee saa yu ñuy suul soo ànd benn néew daa gis yeneen fukk yu ñuy suul hmm. waaw te dañ ne woon bu yàgg ba mag ñi mag ñi lay ci mag ñi lay dem léegi mu ngi ci xale yi ah nañ taxaw xoolaat affaire bi est que tamit riposte bi ci wàllu wérgu yaram à travers système sanitaire bi euh, am na ndëgër laay bu ñu mun a wax déjà que ñu ngi dégg ay euh, corona business di wax ne matériel bi dañu ko démantelé jaay ko ah. loolu itam problème la waaw xam nga feebar su ñëwee fekk yeneen feebar yu fi nekkoon te fajuñu ko maanaam ger gi hmm. maanaam luubal bi maanaam ndëng bi feebar bi daf ko yokk wala dafay yokk feebar yam fi fekkoon ñi hmm. ñaa ngi tal seen bopp di wut naka la ñuy dimbalee nit ñi am ñoo xam ni ay samba boo yuy jaay matériel bi fu ñu ko waroon mayee ñu koy jaay lépp lu lépp lépp lu ñi mën a def pour am alal foog nañ ne dagan na fekk dafa xaraam yaa ngi rey sa bopp yaa ngi rey sa njaboot parce que yaa ngi leen jox ñu lekk loo xam ni baaxul hmm. war nañoo dellu ci maandute ak njub ci réew mi loolu mooy feebar bi njëkk virus bi moom dafay ñëw fekk ko fi rek yokku mais war nañu vraiment euh, taxaw ñu xoolaat tuddoon nañ fi mille milliards mille milliards yooyu man yaakaar naa ne suñ ko jaarale woon fañ ko war a jaarale jox ko ñañ ko war a jox taxaw nuñ ko war a taxaw ba pare rendre compte képp ku ci luubal dërëm ñu ne la ràpp ci kaso bi. loolu responsabilité euh, euh, nguur la en fait régime président de la république euh, ci moom la tàmbalee xëy na. waaw xam nga Ousmane Sembène mos na ma wax mu ni ma. Hmm. Ousmane Sembène ndeysaan mu ni ma soo ñëwee fekk kër salte da ngay ne soo gëyee fekk borom kër gee sàggan. loolu mooy li nga xam ni lii mooy li moo tax ñuy tudd président ci lu ne. parce que mm. moom mooy président moom moo wër dëkk bi nee nañ ko fal suñ ko falee nangam nangam nangam nangam moo fi ŋàññoon jikko yu ñaaw yi fi amoon ne luubal nañu alalu réew mi def nañu lii def nañu lii def nañu laa wax ba sénégalais yi wóolu ko gannaaw dogal yàlla tam ko jox ko réew mi waaw su nekkente ne dem nañu ba ca kanam ñuy gis ne la mu diggee woon ak li am wuute na. mu ne su ko ko fàttali mais jàngoro ji métti na jàngoro joo xam ni métti na métti boo xam ni euh, moom mun nañ ko duur baaraam wante ñun tam ñu xool soo xoolaat suñu bopp xoolaat suñuy comportement hmm. mel ni ci euh, mbirum vaccin yi am na ñu ci coow vaccin bi kat tubaab bi dañ ko defar pour faagaagal pour def loolu yëpp motul a xalaat ñun suñuy borom xam-xam suñuy docteur suñuy doom ak suñuy mag suñuy ay rakk ñoo fiy nekk ay docteur ñoom nee nañu pour la plupart am na ci ñoom sax ñuy werante mais am na pour la plupart nee nañ ñu nañu dem vacciné wu ji mais nañu vacciné wu man de am naa rakkum docteur moo ma ne demal vacciné wu ma dem vacciné wu. Hmm. mos naa feebar bi xam naa la muy saf wax dëgg yàlla yaakaaruma mu xëjaat ci man ñaari yoon maa ngi jéem. Hmm. waxuma nag duma dal wala duma dalaat parce que vacciné wu naa déedéet loolu vacciné wu naa léegi nag bàyyi naa mbir yi ci loxo yàlla la daloon. que ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne si yonent am sa waruwaay mu ne ko bàyyi naa ko ci biti bàyyi naa ko ak yàlla mu ne ko déet dama takk ko ba pare soo ko takkee ba pare nga door ko bàyyi ak yàlla. Hmm. kon ñun dañu war a aussi euh, fagaru nee nañu nañu raxasu nee nañu nañu wàññi tànk nee nañu nañu lii d'accord nañ ko jéem nee nañu nañu vacciné wu nañu vacciné wu mais en même temps ñun ñëpp Sénégal ñoo war a bokk yéene yéene suñ ko bokkee sabablu. ba pare nag bañ a fàtte jublu ci borom asamaan ak suuf ndax jàngoro yi borom xam-xam yi nee nañu moom moo ko fi wàccee te li ko fi wàccee sunu seet naka la war a def pour réformer wu tuub ci moom dimbal mu jéggal ñu jéggal bi yëpp parce que fi mu nekk nii so jàngoro bi nekk Sénégal moo nekk France moo nekk Chine. Mhm. moo nekk fu nekk parce que avion yaa ngi dem H24. ñi ñaa ngi dem di ñëw kenn mënatul tëj say lu aju ci wàllu politique yi lan mooy seen responsabilité ci sa xalaat fi yëf yi toll yaa ngi wax sànq waxu booloo gis nañu ca ndoxteel ga yëf yi meloon ni euh, lu tàmbale ci anam gu baax ndax ñoom ñëpp demoon nañu wuy ji président la république waaye tey euh, politique dafa dem ba muur dayoo pandémie bi loolu itam dafa am njeexital ci askan wi gis-gis bi nu ci am ndax boo waxee dañ naan la corona bi mbiru politique la ñu bari noonee lañ ko gisee tey responsabilité wu homme politique yi euh, monsieur le ministre ci ci ci sa gët lan la waaw li li lii seen responsabilité d' abord mooy politique ñu ni koy defee depuis indépendance ba léegi dafa war a xew dafa war a xew yi maanaam politique u werante sosalante su gouvernement waxee rek opposition bi yëpp ne déet su opposition bu waxee rek gouvernement bi yëpp ne loolu dafa xew yi am na fu ñuy toll ci réew foo xam ne fii waroon nañu mën a am ay mbir yu mel ni santé yu mel ni ci éducation yu mel ni ci euh, euh, fànn yu bëri ci économie ak ci agriculture fondamentaux yiy doxal réew ñu déggoo ci ci yoon boo xam ni suñ ci jaaree file fukki at seen ñaar fukki at dana am fu ñu teere hmm. mais mënatoo ñu continuer di politique su ñuy yéegee la ñu leen defoon ñëpp baaxul su ñuy wàccee la ñu leen defoon yëpp baaxul loolu. suñu réew yu ndaw yi nga xam ni suñu indépendance soixante an rek la am donte ne askan wi moo fi jiitu loolee war nañu am taxaw seetlu woote bi président woote woon euh, euh, palais bala pandémie bi hmm. ñëpp ko rafetlu woon wante dara mujj ci judd lu waral mu yàqu ci sa xalaat yéene yi moo sellul woon moom ba muy woote la mu bëggoon mooy woon réew mi ne tàllal na loxo ñëpp naa loxo ñëpp yem na yem na foofu won na won ñu ko gis nañ ko ci télévision mais jeex na est-ce que bi ñu gisee ci ci ci ci ba ba pare am nañu ay jataay di waxtaan di demlante di diisoo su amee fu mu toll mu ne leen ah gars yi kat fii lañ toll moyens yi lii la ñii est lii nii mais dès le début la ñu gis ne kuréel ba mu tegoon sax euh, ca ca ca fo euh, ñu defoon fi benn lancement au niveau du ministère des finances pour gestion fonds Covid bi dafa am ñu rocceeku ne yow ñun xamuñu lii lan la kon tant que ay tuuma mu ngi am tant que wóolonte amul tant que dëggoo ak déggoo amul euh, li fi xewoon daaw rek moo fi xewaat ren xewati fi déwén mais en attendant mm. ñi ñaa ngi loru ay xale ngi dee ay makka ngi dee te euh, doomu jàngoro ji ni ma la ko waxee xamul parti xamul ku am alal d'ailleurs bi mu njëkkee ñëw moom ñi ñi gën a siiw la attaqué. Mhm. si soo leen di fàttaliku daaw daaw ci ay ñoom euh, jëm ci yàlla Pape Diouf ay kilifa daal yu mag. Mhm. la la fi la la fi attaqué pour wane ne moom amul frontière xamul daraja ba ci premier ministre britannique ci biir néegam la ko fekk kenn mënu koo freiné ak ay garde corps kenn mënu koo déedéet fi ko yàlla yebal lay dem léegi nag. xam-xamu nit fi mu toll nee nañu def leen ñii def leen ñii def leen nii nañ ko def mais bu ñu fàttee te loolu tout temps man laay wax hmm. bu ñu fàtte ni ñun dañu ne réew bu ñu gëm yàlla lañu ñun dañu ñun cent pour cent fii dañu gëm yàlla ñii catholique lañu ñii jullit lañu mais yàlla ji moom kenn la nañu seetaat suñu bopp dellu ci yàlla tuub te itam xoolaat suñuy comportement ndax ñun ni ñu nekkee dëgg la am déet pomm yi ci réew mi bëri na mooy bi bëri na wax naka su dul noonu bëri jëw bi bëri na fen bi bëri na njaaloo bi bëri na yooyu yëpp su amee ci réew ñu ñëpp xam nañ ne yàlla suñ borom xejul ci ñun. Mm-hmm. ndagam virus boo xam ni kenn mënu koo teg bët moo ñu jaxase. sama moom mi nga xam ne moo bind asamaan bind suuf bind li ci diggante bés bu jógee ci sunu dossier. ñu xam ne jóg na jërëjëf monsieur le ministre yàlla nañu yónnee jàmm te jégal ñu ñu ko waxee am na solo ñuy rafetlu bu baax a baax kàddu yi gërëm la ci disponibilité bi euh,